Tape 3 d'école au Sénégal D'accord À école e au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te école e au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détaillées Je kon euh, def réviser continuer lettre alif amna nu ci tay ñaata ci biir sar wi amagul nañu ci ben ñaar ñet amna nu i am a dellu amaat a ja amna ñu ko fi amna nu fi ñaata ja amna nu af isa ja ja kon amna nu ja ja amna nu ja bi ñu ñewé ci ja ja jan amna nu fi afwaajan afwajan muy mbolo di ay mbolo yu ñew di ñew mbolo mo xamni ni ñëwuñu kenn kenn du menn mbolo mu fi ñew tay ben yoon waye mbolo dafa ñew ci suba mbolo ñew ci becc mbolo ñew ci ngoon motax ñu tudde won ko amal wafdi ah wafdu boko ko moy mooy délégation boo xam ni mat nañu romb nañ ñetti nit yegg nañ ci ñetti nit dal fa la tambalé fa la mbolo tambalé bu e. ko defee isa jaa bi sa jaa nasrullahi wal fathu wa raayta annaasa yadkhuluna fi diinillahi afwajan kon lettre yi lettre wa ñaata nga ko am ci bir lettre wa muy wa ñaata nga ko fi am yang ko tambale am ci wal fathu di nga daal di koy amat ci wara ayta am nga fi ñaari waw ak ñetti alif bu nek nak ak turam ben i tudd bi a bi a nga am fi ñaari lettre ja jim muy am nga ja am nga fi jan waye lettre lan am nga fi lettre na ñaar yoon am nga nasrullahi muy ben nga ñëwaat ci wara ay tan naasa nuun bi amaat nga am nga fi naa am nga fi na am nga fi naa biir saar wi waaye amaat nga fi ni muy fii diini fii laahi amaat nga fii laahi afwaajan amaat nga fii laahi afwaajan fii laahi afwaajan fi dinillahi afwajan nyata allah nga fi am ismul jalal allah nga fi am nyata allah nga am ci sar wi am tambali ba am nga fi tambali ba am nga isa jaa waye ya fi nu yamagun amagun nga fi dinillahi afwajan. muy jeex da ngay am fasabbih bi hamdi rabbika fi dinillahi afwajan. fi dinillahi afwajan, afwajan. fi afwajan afwajan, afwajan fi dinillahi afwajan fi dinillahi afwajan afwajan fi dinillahi afwajan fi dinillahi afwajan kon ci njangum lettre ngi bala nu fi duggu yagale ko dinañu xool lettre yi ndax ban nga fi xàmmee ban nga fi xàmmee ñaata nuun nga fi am tàmbalee ko ci nasrullahi ñëw ci war a aytan naasa ah ñëw ci yadu na amaat nga na am nga na am naa am na am ni ah fii diinillahi léegi ismul jëla allah tur yàlla bi am nga ci ñaar nasrullahi bi nga ñëwee fi fi dinillahi amat nga fi xana allah moom fu ñu ko bindati day xana doto ko laajte fi dinillahi afwajan alif yi am nga ben ñaar ñett macha allah am fi ñetti alif am fi ñaari waaw ba ñet am nga wa fi ci war fatu am nga wa ci war ay tak waye am nga wa ci afwa jan afwa jan am nga ja ci saa jaa am nga jan ci bi nga ne afwa jan kha nyata nga ci am ben rek nga fi am moy kha khi khu am nga yadu luna, luna da ben nga am te amulo turu da nga amat fan di ad nga am fi moy ya ad moy yadkhuluna bi nga ñewé fi fi dini lahi nga am di ben da nga am fi am nga fi ñaar kon am nga am nga ad am nga di ci baatu da di du da da dan du du dun di di din ad ok fa mom ñata fa nga fi am am nga fi af ci mujju af wajan fa fi fu wala fa fa fan fu fu fun fi fi fin af am nga wajan waaye am nga ca benn ca wal fathu fa nga fa am fa fa fan am nga fii fa waaye fa moom am boo ko fi tey jaa nga fi am waaye am nga af muy wajan baatu sha sa simple rek ñaata nga ci am ben muy wara ayta nasa wara ayta nasa xoolal lettre tay am nga fi i am nga i ci bir sar wi i am nga ko ci bir sar wi waaw am nga fi i am nga fi a ah am nga fi a am nga fi ben a ben i ben a ben i ngo am nga fi i am nga fi a ak banati amat nga fi a mu ñet amat nga fi a ñet ngoog lettre a ñet nga am ci bir leçon bi tay ñett nga am ci bir saru isa jaa ah, nasrullahi wal fathu am nga ci ñetti a ah. nga am ci ben za za za jaa ah. kooku ben rek nga ci am ben lettre nga fi am za ben nga ci am muy za ben nga ci am waye amo sax za bi yang ko am mutudu za iza jaa yang yang am am nga fi za am nga fi ja nga am ja am nga ja am nga fi ja laa ja nun nyaata nun nga am am nga fi na am nga na benn won sax na na bu mel ni nga am na bu mel ni nga fi am moy nasrullahi ni la mel ni la mel nga amat fi ban annasa am nga fi na awara ayta nasa am nga fi na, na am nga fi na na waaye aman nga fi lan ni na nga amat, mo yadkhulu na am nga fi na waaye am nga ni ni, dini ni, fi dini واو nga fi am sa am nga am nga fi nga fi am ci alif waaye za ji nga ci am na na na am nga ko fi fa ñaata nga am wala kha ya ta ben nga am ba ñaar ndax am nga ci wal fathu am nga at bi nga am ci wal fathu moy at am nga at at cawal fatxu muy fat am cawal fatxu foofu nga am fat fat fat am nga at bu àndee ak bu àndee ak faa fat lay nekk am nga fat am nga fat am nga fat fat waaye am nga af fa am nga fi fa fa am nga fat am nga fi fa am nga fa ca wal fatu am nga benn fa am nga fa benn fa ci wal fatu waaye boo bëggee mu nekk af lan nga fa am af nga am fii af fa amaat nga ko muy af ca af waajan yaa ngi fi amaat af af nga fi amaat allah mo ken dootu la ko jangal japp na ne fek nga ñu bindu ko fi mu leer fek nga ñu bindu ko fi allahu mu leer allahu allahu allahu allahu kamu gak fibler nanya. Allahu Allahu Allah allahu allahu leer na moom ni allahu nga am fii muy ismul jalaal turu yàlla wi turu mag wi laa ilaha illa kon yow daal saar wi tey defe naa ne xàmmee nga fi lettre yu bari ndax am wal fatxu am nga fi at waaye am nga taa muy wara aita, wara aita, ta bi nga am kay def ko fi génneel ma fi ta génnee nga ta mi ngi ni waye bi nga bëggee mu nekk at dang ci yok fa muy fat muy fat ho waaw yow iya ndax lettre ha ndax am nga ko fi xoolal ba xam ndax am nga fi lettre ha liral ndax di nga am lettre ha fi ban moo fi xaa ban mooy xaa mooy إذا جاء نصر الله والفتح والفتح كلان لا حال ولا هو ولا هي ولا هن هو أو هو والفتح هو كون لترو حا دي حالونك أم كوفي lettre halong am nga ko fi waaye dafa nek ci fin bi ndax so beugé xaalonk boo xam ci tambali bi lay nekk bi ngay am bi ngay am ha bu la nexé def ko ni muy ha kese bo beugé ha nak, dang ko yok def ko ni ci kaw muy ha waaye bu fekké dafa nek ci fin nak wara nek wara nek wal bi dang koy def Adam delu dang koy def dang koy def dang koy def adam delu wëcc <laughs> dal la ñuy doon wax a ay ndegal ay ndëgal ayin bu melni ni fas waye bu nekké ci fin dañ cey def dañ cey dañ koy wàccee mu ñew ciat bi day delu suñu tuddé ko ay ndegali wëcc légui nak ha bi am nga sa ha ha ngini ngi dang koi koy wëcc mu ñew bu fekke da nga ci bëgg dool di dara nak ni ngay def da ngay def ñew ci kaw muy ha ha wala han, wala ja wala jan waaye bu fekke nak ci suuf nga bëgg mu yoko fi bo bindé ya ha ni ngay def da ngay yoko ya muy hi hi bu andak ya, legi yow ben rek nga ci amagun ci ndax boo delloo ci boo yegsee bu saar bi di jeex ba nga dem ni fa sabbih bi hamdi rabbika di nga am foofu beneen xaa sabbih waaye kooku itam dafay nekk aadam dellu boo xam ni dafa wëcc dafa dellu ci suuf muy fa sabbih comme ni ngay bindee subhanallah sabbih sabbih isma rabbikal aala sabax sabaxale yooyu sabbih boo defee xaa boobu dafay wëcc benn buum rek lay rek bu xëcc ñëw ci suuf muy nii muy xaa yi daal def nii ko defee la mu àndal moo ko jàpp mu ñëw nii moo tax mu nekk ne xaab bi mu ngi nii waaye dañu koy yëkkati ba ca kaw delloo si doo ko pour nga mën a xam ne kii mooy xa kese du ah bu doon ay ndëgal day nekk ay ndëgal li wëcc nii nii nii muy a ah comme ku bëggoon a bind tey almusia almusiya animateur wala mu bëgg bind almusiya rajo bi almisiya ab rajo misiya rajo isaa rajo ba ci jëmmi boppam misia di post rajo bi misia bi mooy post rajo isaa mooy rajo ba ci boppam waaw isaa rajo Sénégal isaatu Sénégal rajo Sénégal waaye boo yoree sa rajo bi al misia ngay wax misia mooy post rajo bi may jàppee bi ngay yore di ko jàppee rajo bi waaw bu ko defee noonu lañ koy bindee aabu ah, noonu nga koy bindee muy àll almisia almisia poste rajo waaw almisia nga daan def ay dëggani wëcc waaw al isaa di jëmmi rajo ba ci boppam waaw macha allah bu ko defee nga am aayooyu ak hayo yo, nga xame ko ni gennel nañ de ko fi hawo kese bi mo nek ni waye nak boko beugé mu nek xa nak ñoy niro waye lutax ñuy niro ba pare bi tudd ha bi tudd ha ki dafa am point buñ ci dugal point biñ ci dugal motax mu nek xaa long bu dee ha bi ha bu long la waye ha bu longé am point xaa long. lañ koy wax xaa lonk xaa lonk lañ koy wax mooy xaa bu lonk waaye ja bu boo ko def maasee ci suuf nag jiim ngay wax jiim la ja ja ngi nii ja boo ko bëggee boolee dara dangay ngay dindi wëcc bi daal di koy xëcc mu dem nga def jaa walla nga xëcc mu jëm ci suuf nga def ji wala nga xacc mu am waaw mu tuddu juu mu ngoog yooyu yëpp dafa am point ci suuf moo tax bu dee xa noonu la koy toppe nga def xaa wala xii wala xuu wala xan wala xin ñaari masque ci suuf pour la lettre yi leer pour lettre yi leer xuruful xijaiya yi noonu la mën a leere jàpp naa lii dina mën a leer ci sa bopp di boo bëggee lire léegi sa isaa ja ba mu jeex di nga dimandiku si fii ndax di nga xàmmee yu bari yuñ la jangalon bala noo yegg si ci isa jaa ni lettre yi di huruful xijaa yi dañ la ko ben ben lon bu nek ñu maasal la ko ci kaw ak ci suuf maasal la ko lonk yi ak ron yi maasal la ci tanwin yi muy ñaari masque yi ci suuf ak ñaari masque yi ci kaw yooyu ñu defalon na la ko ci lettre yi legi nak bu ñu dikkee ba ko pour nga mën ko liir di génné ñu génné la ci ñaata bii nu mu tudd fële waaye tey bi nga ñëwee ñaata nga ci am ndax mën nga koo génnee ci biir boo génnee bii ba mu jeex nga génnee beneen lettre ba mu jeex nga génnee beneen lettre ba mu jeex rek léegi da ngay mën a lire correctement te doo am benn problème doo am benn jafe-jafe ndax boo ci xool rek di nga ni ah lettre bii de bi ma ko jàngee dañ ma ne woon bu ñu commencé ci kaw nangam la bu ñu commencé ci suuf nangam la loolu mooy tax. bokk na ci li taxone yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni ki jang alquran ta moko lagul ñaari fay lay am ñaari fay lay am may ak yow alquran nu wara a kamil wala ku nañu yekati jukki jox la ba ñu bind tuuti jox la bind tuuti jox ma ni jang len ko ñu di jang sama làmmiñ gaaw lol nga xaway yeex ndax nga xaway li tax nga xaway yeex moy da nga ko mokkalagul bu baax te bëgg ko jàng jàngin wu leer nañ bu ko defee du gaaw ci yow waaye bëgg nga loo loo paase rek dafay baax lool nga jàng ko correctement su boobaa yow yaa may ëpp fay dañ lay fay ñaar man ñu fay ma benn tuyaaba yow ñu fay la ñaari tuyaaba ci exemple rek laa lay jox nag ndax yàlla moom buy fay moo xam la muy fay ak na muy toll waaye daal yaa may ëpple man mi sama làmmiñ gën a gaaw ndax lan man tuyaaba jooju ngay am tey ñaar. maa ngi ko doon am ca mayit ba ma koy jàng mu metti ci man mayit may góorlu pour man ko léegi yow nag yaa ngi bëgg góor góorgóorlu jàng alxuraan waaye yaa ngi bëgg a góorgóorlu ci man mu nga ñaari coono yi nga boole moo tax ngay am ñaari fay man fay googu li tax tey aw ko dañ ma ko fayoon te ba ma koy jàng waaw yow na tey yaa ngi koy jàng yow ñu di la fay moo tax ñu jox la ñaar bu ma ko jàngandoo yow ñu fay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne dafay tab tabi di jéem di nab bi te te di tey fexe ba mu leer muy ni kooku ñaari fay lay am moo tax nag yow muy jàng tey ji saa jaa ma la indil tey yi nga mokkaloon te doon ko jàng ci njàng moo xam ni doo ko mën a liir ñu la ko wanee doo ko xam ñu tudde ko njàng moo xam ni dangaa gëmm njàngum gëmm njàngum gëmm lañu koy tuddee am na ñu koy waxe beneen baat waaye njàngum gëmm la ndax danga koy boo ko nee xoolee it te gisoo ko te mënoo ko liir kooku njàngum gëmm la moom nga gëmmoon di ko jàng tey ñoo yem waaye nag yow buñ la ko wonee di nga ko xool di ko xàmmee boo ko wonee ginnaaw itam fàtte woo ko di nga ko mokkal di ko xam waaye boo ko bëggee xam ci nii nag nga xam ne dootoo ko fàtte mukk mbaa loo ci fàtte doo ko laaj kenn da ngay ñëw ubbi téere bi xool ko jàngaat ko daal di ko fàttali ko daal di xam ne lii loolu xàmmee lettre yi moo la koy may xamee leetar yi mo la koy may kon so ñëwé ci biir tay ubbi sa téré fas yéné jang isa jaa ni ko jak xol ah man di isa jaa ana auz billahi min asheytaani rajim bismillahir rahmanir rahim way i i de xamna ko mo nga ne ah sabi bi na nañu ma ko jàngal ya. za bi bu andé ci bi isaa nga dal di isa jaa ah bi xam nga lu jeex na nga ñew ci nuun bi nga ne du fàttaliku niñ la tasaarele won nuun bi ak saq bi ni la saq bi bu fekkee ni dañ ko mas euh, ron as lay nek nga daal di xam ni nasru lahi lahi mom foko gisat xam ko ndax ya nga diko ko gis ba xàmmee nga ko léegi dootu bok ci ngay tegale ndànk ndànk di nam na nga daal di ni isaa jaa lahi euh, da nga ci am benen contenté bo xamni ndax da nga nan tay mën ko lire nga tok nak lire bobu ngay tok di répéter liir bi boobu ngay toog di répéter liir bi di répéter liir bi di répéter liir bi bu boo rombati woon ñu bind ko ci bunt décoré ko sax nga daal di xam ne ah Issa Dia anasuulaahi la bind ci bunt bi jaaratu kër ba sonn mën nga jàng léegi te doo bouger doo fay weer nga élève te toll ci examen li nga soxla am na fi te gën a la Tu sois Ici au Sénégal Tu peux facilement avoir accès à école au Sénégal